asalaamaaleykum dal leen nag jàmm màggal bi ñu doon màggal démb sañ-sañ bi nga xam ne moom la presse bi am suñu réew plan bi nga xam ne moom la f fas yéene amal suñu réew Ousmane Sonko ak Aminata Touré bi nga xam ne fi mu toll nii daal ñu ngi jokkoo bu baax a baax ak it premier ministre bi xam ne ne daal Sénégal dafa nam organiser Coupe d'Afrique des nation ci atum 2027 loolu soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool dañu koy door rek bés bi nga xam ne démb moom lañ doon jagleel wàllu sañ-sañu presse bi ci àdduna wërngal këpp ak Sud Quotidien bi ñuy xamal ne nag ci tolluwaayu yooyu la sañ-sañ Sénégal daal ñàq na ay place yu takkoo takku ndax jugi na ci juróom-ñaar fukk ak ñetteelu place bi daanu ci téeméer ak ñeent ba ñàq na daal liy tolloog fanweer ak benn place bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo bi faree ci avenue Bourguiba ñuy xamle ne nag suñu réew dañu ko boole ci juróom fukki dëkk ak juróom yi nga xam ne daal ci àdduna wërngal këpp daal journaliste yi seen liggéey xajam na fa lool ci loolu la ñuy des ak wàllu enquête ñu xamal ne nag sañ-sañ yi daal jëmal ko suñu réew du lu yomb wàll enquête jox si kàddu ki nga xam ne moo yore kàddu gouvernement bi di Abdou Karim Fofana muy xam le ne nag Sénégal dafa mus a sàmmonteeg loolu waaye nag ajuwul daal ci place yoo xam ne daal moom lay jël ci ay classement am déet ci jamono jooju nag Mactar Sylla bi nga xam ne nekkoon na fi directeur général bu RTS ni nguur gi daal dafa war a fexe ba rattaxal diggante yi ci digg diggam ak journaliste yi rawatina jamono joo xam ne nag ay journaliste yu bëri dañoo am xaarma yàlla ak wàlli yoon ci jamono jooju nag nii moom nag mi ngi soññi daal journaliste yi ñu jël seeni responsabilité na mu waree ñu fàttali ñoom ñëpp nag ñu ngi teewoon ci ndaje bi nga xam ne moom la coordination des associations de presse doon amal démb ngir màggal bi le bës moo tax Sud Quotidien ne waa CAP daal tey lañ gën a dogu ngir jëmmal sañ-sañu presse bi ci suñu réew bu ñu jógee ci wàll press bi ñu jàll ci wàllu politique li ci gën a fës nag bokk na ci diggante Mimi ak Sonko mu soxal waa Vox noonu la ñu woon waaye fi mu toll nii daal ñu ngi rataxal seen diggante ci législative di élection tabbu député yi tata ak tonton mile tuuti ñu reyante waaye nag fi mu toll nii daal ñoo bokk gis-gis waa Walf Quotidien di ko firndeel di xamle ne ñoom ñaar ñëpp daal fas yéene wuy ji Macky Sall ci woote waxtaan bi muy wootee ñoom daal lëkkaloo bañkati lañu ci jamono jooju nag waa tribune jox kàddu gi jiite mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mu dal bu baax a baax ci président Macky Sall xamal ne ko fas yéenewul gi mu woote li tax bugan Gueye Dany am bi li taxawaay nag muy dal xam le ne ne Macky Sall musul nekk koo xam ne daal ku dëggu rawatina ci woote waxtaan yu yaatu yi nga xam ne ci la soobu ci jamono ji moom kay lenn rek ko soxal mooy am ñoo xam ne daal dañ koy jàppale ngir daganal ñetteelu mandat am ci la ñuy des ba tey ak waa l'info di waxtaane nag F24 ñoom ñi nga xam ne it dañoo dàq waxtaan yi nga xam ne moom la njiitu réew mi nam ci réew mi li leen soxal kay mooy seen rassemblement bi ñu fa yéene amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu ne ñu ngonk waa F24 daal ni dialogue bi le moom soxalu leen benn yoon li leen soxal kay te soxal bépp sénégalais muy daal nan la ñuy def ba jàkkaarloog régime mu président Macky Sall ci loole la ñuy des ndax waa réew mi quotidien ñu ñee xamal ne daal waa F24 doon nañ xeex bi ba noppi te li ñuy laaj mooy njiitu réew mi xam le ne du samp ndëndëm ci atum 2024 mu fexe it ba organiser présidentielle boo xam ne daal bu mucc ayib la leneen loo xam ne it soxal na waa F24 te waa réew mi quotidien di ñu ko yeggee mooy ñu fexe ba teggiin loxo ñëpp ñi nga xam ne daal wàllu politique moo tax ba ñu nekk ci kaso bi ci jamono jii loolu yóbbee ñu ñu waxtaanee mbirub cocktail molotov fi maanaam essence yooyu nga xam ne daal dañ koy dugal ci ab butéel taal ko Les Échos mbir mi soxal ko mu ñuy xamal ne teg nañ loxo luy tolloog juróom-ñetti nit ci mbir mi yeneen juróom-ñaar yit ñu ngi leen di wër bu baax a baax ñoom nag liñ leen di toppee daal mooy dañoo bëggoon a yëngal réew mi tekki nag taal yenn ci ay bâtiment yoo xam ne daal nguur gee ko moom ci fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu génn wàllu yoon libération di ñu xamal ne suñu naataangoo bii di Babacar Touré nag juge deuxième cabinet bi am na yum teg ci ndoddam teg ci nag teg ci ndoddam li ñu duppee contrôle judiciaire maanaam daal yoon da koy bàyyi gët te ci ndigalam lay woyee bés bi le jour nag di waxtaanee capitalu réew Sénégal di Ndakaaru bi nga xam ne fi mu toll nii daal ay waxtaan yu am solo lañ fi ubbi jëmale ci wàllu économie sociale ak solidaire muy xam le ne donte def nañ ci ay jéego yu am solo war nañ it mbir yu bëree bëri ci jamono jooju waa l'observateur di artu bu baax a baax lii yoot liggéeykatu post yi daal du jàmm li ko waral mooy lu ëpp ñaari junni ci liggéeykat foofu le daal danañu leen fa jëlee wa ilaa ñu waxtaan ak ñoom ba ñu mujjee d'accord wala boog ñu dàq leen xam la ne daal dañoo am ay jafe-jafe ci wàll koom-koom ci wàll koom-koom boobu la ñuy des rawatina la ñuy def ba sukkandiku suñu réew ak it daal jàmm sax diggante njaatige yi ak liggéeykat yi ak nguur gi moo tax it njiitu réew mi li ko soxal ci conseil des ministres bi daal mooy ñu ubbi ay waxtaan yu yaatu yaatu ak secteur privé bi ba tey ci biir le soleil jëmale ci wàccaayu tabaski atum 2023 premier ministre Amadou Ba di xamle ne danañ ci amal ab conseil interministériel mu it yëkkati ay kàddu jëmale ci wàllu tàggat yaram rawatina xibaar bii mu yeggee suñu naataangoo yi ne Sénégal daal dafa fas yéene ci atum 2027 organiser coupe d'Afrique des nations mbir mi soxal ëttu yéenekaay yépp yu ñu xëyandool ëttu yéenekaay yi nga xam ne nag wàllu tàggat yaram moo leen soxal di nga xam ne moom la def ci équipe am bi mu nee ci jamono jooju waa sunu lomb di xamal ne promoteur bi di jamaïcain daal fexe na ba nar a organiser combat bu njëkk mu nar am ci diggante Bombardier ak rëg-rëg jeexital gi nag muy daal Sa Thiès ñaq na ki nga xam ne moom la gënoon soxla ci lamb ji jamaïcain di promoteur bi di xam xamle ne daal nam na organiser bi les ci janvier atum 2024 lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyee ndool ñu yendoog jàmm Bonjour. La célébration de la journée de la liberté de la presse hier, le plan d'action du F24, le rapprochement Sonko-Mimi et l'annonce de la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 du Sénégal par le Premier ministre Amadou Ba, ces sujets sont fortement relayés par la presse du jour. Classement mondial de liberté de la presse de 73e mondial en 2022 à 104e en 2023. Le Sénégal dégringole. constate amèrement le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Le Sénégal continue sa de liberté de la le classement mondial de Reporters sans frontières, figurant parmi les 55 pays où l'exercice du journalisme est devenu problématique. Le Sénégal occupe la 104e position dans le classement 2023, dégringolant ainsi de 31 places par rapport à simplement dans le rouge, intime conviction du confrère de l'avenue Bourguiba. C'est une liberté à rude épreuve selon l'enquête. Entre la presse et le régime, on ne parle plus le même langage. D'ailleurs, des assises sont réclamées d'après le confrère qui donne la parole au porte-parole du gouvernement Abdou Karim qui soutient, je cite, le Sénégal respecte la liberté de presse par principe et non par souci d'un quelconque classement. Et pour Matar ancien la RTS, il faut que réel avec toutes ces procédures en cours et colonel Wardini, ancien DIRPA, invite les journalistes à beaucoup plus de responsabilités. Pour rappel, ils ont pris part au panel organisé hier par la CAP dans le cadre de la célébration de cette journée de la liberté de presse. La CAP garde tout simplement le cap d'après Sud Quotidien. Au Sénégal, la presse est tout simplement un quatrième pouvoir en otage. leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, tire à boulet rouge sur l'appel du chef de l'État. Selon lui, Macky et ces appels au dialogue non plus. Pour Bougane Gueye Dany, le président Macky Sall, à travers cet appel au dialogue, cherche tout simplement des partenaires qui puissent légitimer son projet de troisième mandat. Age souligne le mandat. Vox Populi informe que des législatives à la présidentielle, Mimi et Sonko, ennemis d'hier, se rapprochent. Manquant de s'entretuer lors des législatives, Tata et Tonton tirent désormais sur la même cible pour la présidentielle. Au moment où Wolf Quotidien, toujours relativement à ce rejet pays, c'est le couple du refus, avec l'ancienne Premier ministre qui est victime de menaces et d'insultes. Refus de dialogue, rassemblement du 12 mai, le F24 ouvre les hostilités, d'après l'info. Le F24 qui alerte À partir du vendredi 12 mai 2023, il s'agira de se construire en une force dissuasive rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Restons avec le F24 avec Réumi Quotidien qui renseigne que ce front insensible à l'appel au dialogue fixe ses priorités à Macky. Il s'agit entre autres du renoncement à la candidature du président sortant et à l'organisation d'une présidentielle inclusive et transparente. Parmi les priorités fixées par le F24 en pole position la libération des détenus politiques Ce qui nous mène à nous intéresser à l'affaire des cocktails Molotov avec les échos qui renseignent que neuf personnes ont été arrêtées et que sept sont activement recherchées. Et le confrère de rappeler le dessein de ces personnes, créer des troubles ou incendier des édifices publics lors du procès du 17 avril dernier. Restons toujours dans les couloirs de la justice avec Libération qui s'intéresse à l'affaire de la femme découverte tuée et calcinée à Kër Macoumba Diop avec l'enquête qui accable Pierre John. Le parquet judiciaire pour meurtre et libération de signaler que la police tient un mobile au moment où inculpé hier par le juge du deuxième cabinet, Babacar Touré est placé sous contrôle judiciaire au moment où Bisby le jour s'intéresse à l'économie sociale et solidaire. C'est essentiel, d'après le confrère qui rappelle que Dakar est actuellement la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire et précise que le Sénégal avance dans la législation mais traîne dans l'opérationnalisation. Stabilité sociale et émergence une du Soleil de ce matin. Toujours dans les colonnes du Soleil et concernant les préparatifs de la Tabaski le Premier ministre annonce un conseil interministériel et décline la feuille de route pour les sports. Justement, Amadou Ba engage le Sénégal. Le successeur de Yankoba Diattara a annoncé que notre pays est preneur et prévoit de soumettre, si les conditions sont réunies, sa candidature. Sujet qui intéresse la presse parue ce jour. La presse sportive, notamment Lyon, Boulaye Dia. Boulaye est en mode d'après Stades le quotidien du sport. Il est le meilleur buteur de la Salerne sur une saison avec 15 buts dans l'élite, ce qui est une première. Et pour record, Boulaye s'offre tout simplement un bout d'éternité. On lutte, Jamaïcain décroche sa première grosse affiche, annonce Sunu Lomb qui informe que le combat Bombardier Reug-Reug est scellé. Conséquence, Sathies perd son choix numéro un et le promoteur de rappeler je vais organiser ce combat avant janvier 2024. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.